xit ma nag nun africains yi dañoo tayel lool tayel gi ëpp na fu ñu toll nii xit ma bi ma ci bindee ñu bari ñu ngi coow kenn ku nekk di wan ne bind ci xit ma yooyu sëñ bi bindoo ci de xam nga xam nga nag mbir mi bu ñu ko tegee ci taabal ji nii ah li li fi am képp lañ fi teg lii taabal ji fi ñu toll loo gisut fii boo fi gisut ci taabal ji amul ci mbindum arab xidma moom taabal ji donc moom la la taabal ji rek 1974 ba 1900 lan ba ba 2021 lu ñu fi bind ci arab mi ngi nii lu am solo la danañ nag vérifier ba xam ba xam ba xam 74 ba 1921 lu ñu fi bind ba xam ba xam am na ko bind wala bindul wala daal yëf yi maanaam yaa ma neex da ci bëgg am wala lan 1974 da da nga dégg ñu wax ne oustaz Saïd Salam di bind na ca teesam ba mastam ba 74 la ko bindoon ca Maroc bind na ca ca xidma am na ñuy wax loolu am na sax ku ku ma ko wax ma ne ko waaw sim yow gis nga ko mu ne ma déet ma ne ko waaw daa mel ne xam naa xam naa koy gisoo koy lim ci bind passe dix passe dix dix la ci bind yaakaar naa ba passe xam naa douze lu mu bind nee na 1961 ca njaareem sëñ Asan Salaam baayam toog nag sëñ Bachir di di ko laaj waaw moom léegi lu tax sëñ bi daal fonk fonk dakkantalam woowu ñuy wax alxadim moom moom sax dafa wax ne sax sëñ bi lu tax mu lu tax sëñ bi daal jël woowu tur sëñ bi moom jël tur woowu maanaam dana yàllaa ma ko tuddi la wax waaw Isaa salaam moo ko sàkku ci yàlla mu tudde ma mu def ma mu def ma jëwriñ ci ci liggéeyam bi nee na nee na sëñ Bachir ne ko waaw moom day sëñ bi liggéey bi muy liggéeyal yonte bi dafa rëy lool lool nag tax na nag mu war a sax moo tax nit ñi di ko wayantoo ci waxtu wu ne moo tax dakkantal woowu nag mel ni mel ci xol koo dégg daal di mooñ Seydou Salaam ne ko man de gis naa ci beneen xekk ma mooy daa mel ne sëñ bi moo ko tànnal boppam loolu Seydou Salaam wax ne wax nee na ni nga xam ne moom la tànne xetma bi nga xam ne moo lënkaloo ak ak dakkantal woowu te it gërëm loo na lool ku koy tuddee xadimu rasulillah misaal nee na 1961 la 74 lii képp lañ fi bind li ma wax benn paragraphe la ñaar lii képp 74 thèse bi mi ngi tuddoon ok thèse thèse bi mi ngi tuddoon madxalun jadid ila dirasatil muridiya min xilaali nusuus si Cheikh Ahmad Bamba al mufakkir Sénégal yi dirasa tahliliya sax see naq xaw ma naan naq di nangam na am léegi lii lañ ci bind lii ñaari paragraphe 74 gaa yi naan gaa yi naan ñoom dañ ciy bind déedéet lii dañ ciy bind kii mooy tees ba 1974 léegi dem nañ ba 1993 ñu am Oustaz Saïd Salam def def benn muhaadara chambiya du du académie yi de maanaam muhaadara boo xam ne ay mudu mudu la ko doon defal ca New York xam nga ñooñu moom dëgg yàlla moom booy wax ak ñoom wax ja da yomb non ah oh daanaka 1993 mi ngi fii mi ngi fii maanaam boo ko boo ko yëree doo ci gis xidma boo ko yëree doo gis xidma néew si kon léegi 1974 paragraphe lañ ci bind day nettali ne baayam nee nangam 1993 def na benn muhaadara am na gaa yoo xamante ne dañ naan foofu da cee wax ci xidma di waxu ci xidma moom mi ngi fii waaw bu ñu demee ba 1996 na na na sirul xidma man ma daal ci man ma théoriser ko man théoriser théoriser nag yaakaar naa yéen war ngeen ko xam ma mbaat bi lan la lu mu doon leeral jël benn baat duy ko ay maanaa yu bari bal lu ci naas lu ci lu baree baree bari côté bu ne nga jëllër bi ko ko kooku mooy tansiir waaye tansiir moom du rek wax maanaam léegi daal définir benn baat noppi ca waaye di jeex loolu moom du du tansiir théorisé kooku du tansiir de bil maanaal falsafi déedéet kooku moom bii moom théorisé nañ ko danañ ci dikk 1996 kon ba 1996 kenn ko théorisé xidma amut amut de 74 ba 96 moom maanaam 96 la la lañ soog a théorisé xidma waaw léegi ñu dem ba 1999 kii mbindum loxoom professeur Galaye Ndiaye la moo ko bind date ko 13 alxaayira 13 keer 13 de 1999 ci la ko bind ci la ko bind lam ci bind waaw nangam nangam 1999 la kon fekk na bii moom juddu juddu moom 1996 kon moom it wax na fii moom ci boppam wax na ne wax na ne kat maanaa daal lu ci kii daal maanaa lu ci lu ci sori waaw maanaam daal dafay jaar jàll loolu mi ngi ko waxee ci benn colloque bi ñu defoon ci ci ci xidma daa te mu nekkoon ci 1 ba 2 mars 2020 tuddee ko sunnatul xidma ka ka aliyatin li mu waajati virus corona ci la ko defoon wax na nga xam ne moom ci bii sax waxtaanam bii sax sama définition bi moom la jël saraa ko nagam nagam waaw da koo yaxal de mi ngi nii da koo yaxal ñoo ko doon ànd sax heure yàlla di ko liggéey loola bi demee ba ba 2017 min ajli i'aada qiraatil muridiya waaw foofu foofu di bi demee ba 2012 sa salif salaam def na benn benn muhadara amma rek mooy ca ca rawdu rayaan ba ñu ko tuddee nasiru xidma inda Cheikh Khadim 2012 la bi mu koy bind abaloon naa ko sama sama théorie bi ngir moo ngir moo xam naa sukkandiku ca donte ne nag tudd ko ca waaw laaj naa ko booba ne ko ah lu tax tudd ko ci mu ne ma ah lii 1974 laa ko defoon 1974 moom fekk na boobu man man ci gëstu bi man man la la muy tuddee loola gis naa ko mi ngi nii loola moom dëgg yàlla ñu dem ba 2017 mu génn téeréem bi téere bu am solo la rek am solo min ajli qiraatil muridiya téere la bu bu am solo maanaam mel na ne ca keer mel na ne ca keer waxoon na ne waxoon na ne nu nu mu ko waxee na di waay neewoon na neewoon na alxidmatu hiya mafhumun suufiyun mu daxam man nag ba tey laajuma ko lu lu lu mu ci jublu man xamaguma ko de concept mystique buñ réel buñ gonfale buñ amplifié loolu man xawma ko ci falsafa xam naa bi mu ko bi mu ko gaaralee keer ba noppi gars yi ne ma lu tax ba mu demee ñu ne lu tax doo commentaire man déet man duma commentaire man xawma li ma de kon léegi téere bi nii keer 96 wala 80 97 wala yooyu xamatuma at ba fa nekkoon booba da doon théoriser da doon jàngat xidma nee na jaare ko ci al allan alxilaafa la ko dal alxilaafa nee na xaw ma la ko doon jàngate la la tax mu ko doon jàngate gis naa ko ci mu xararam li li mu doon jàng booba da caa am moom loolu la jàng année bi mu bi mu jàngee loolu xam naa ci la daal man ko ndax naa jàngati murid yi gis naa loolu waaw waaye téere bi 2017 xam naa man 2015 la wala 16 16 la yaakaar naa ci la def benn benn muhaadara ca daru minam ci def ko ci atawasul daal di jël far muridisme ne mooy atawasul loolu sax baax na moom loolu baax na nit ki di maanaam léegi xalaatam di soppiku xam naa daal soppiku nga xam ne day mel ne day développement muy am ci xalaat yi kon léegi bii moom mooy bi nga xam ne 2017 lim bind lépp ci xel ma mi ngi nii 2017 ci la ñor léegi téere bu am solo docteur Khadim Silla 2021 mu mu mu indi ab téere tuddi ko alxidmatu fii fikri Cheikh Ahmad Bamba ka mën a jin li tëjjiit wala wala islah nee na nee na ma sax bi bi nga ko bindee nee na ma mooy rakki al al al alomde maa ko ci sonal lool ñu ko bindal bindal bindal am na solo waaye dafa mel daal maanaam du du téewli daal day wax xidma xam naa ni ñu ko defee rek Cheikh Moustapha fii ak Sëñ Tuubaa donga yee nangam waaye da ni ko téewri daal ni ko téewri xam naa daal téere la buy wax ci xidma waaw wax na ci sax ay gaay yoo xam ne ñoo xam ne défini définition yi ñu indi ci xidma indi na ko nangam nangam am na solo yaakaar naa jombul galaaj ne war dama sax galaay waxoon na ko mu mu dugal ci ab définition yaakaar naa champs yi bu kebe yaakaar naa waxoon na ko ca man mi indi na ma ca champs yi bu kebe moom téere bi bi mu bind ci sëñ Saaliwu la def benn définition kooku du du du théorie définition benn la indi rek mu jeex suñ benn indi na ko fii waaw waaw kon moom téere bu am solo boo xam ne xam naa bu ñu nee na ñu ngi koy traduire en français bu bu noppee dana baax ci yéen loolu moom xidma ni ko murid gi dundee woon moom lay wax foofu. kon am na benn benn xale boo xam ne sëñ Mbàkke Fall la tudd def na ci ci sama xidma bi def na ci master moo nekk nii ku ñuy wax. docteur Ahmad Tidiane Diallo moo ko su su souteniroon 2008 2009 mi ngi nii ci àndu jóob la am na solo lool waaye moom nee woon naa ko dama bëgg nga critiquer ko mu ne mu ne ma mënuma ko da ko exposé rek baax na sax waaye xam nga loolu moom bu dee ci falsafa moom loolu neexut li neexoon mooy mu critiquer ma ne ma nangam waaw docteur docteur am njaayeen la Cheikh Ndiaye docteur Cheikh Ndiaye 2021 2022 ci ci coo ko def njëggul rek bi muy koy bi mu koy kii diraasa pour ba xam ndax moom renaissance te la doon wax ci mouridisme ci mbi ci mbindi sëñ Tuubaa ak yooyu wala xaatu sëñ Tuubaa gis na ne moom alxam da lay déparé ci ci gàttal gis na ne kat maanaam léegi mag seeru salaam daal liñ ci bind moo gën a dëgër ginnaaw bi sax mu ne ko daal man la gis ne maa ko théorisé théorisé bu mat sëkk mooy docteur Cheikh Ndiaye lu am solo la xam xam kon développement kon mi mi ngi am ci théorie bi waaw sëñ Mbacke Fall moom moo jëkk def loolu teesam boobu master bi kii def na doctorat moom doctorat d'état la ci def lu am solo la gëstul boo xam ne xam naa su ko traduire en français dana baax ci jàngkat yi français yi kon defe naa kon gaaral naa kon taarix bi li ma ci jublu mooy daal wax yàlla nit ñi dañuy wax daal dañuy wax waaw am na ko ko xam ne daa waxoon ne ma waaw yow lu tax tuddoo ci ñi nga xam ne ñu ñu ci jëkk bind xam nga omda bi tudduma ci kenn ku njëkk a def dara ci ci xidma léegi loolu tax may exposé lii lu tax soixante-quatorze ba quatre-vingt-seize kenn kenn defu ci dara de ah te yàlla kenn kenn defu ci dara ko ko ko nu ma koy tuddee maanaam bu dee ci jànkati français yi Abdoulaye Wade professeur Wade 1957 bind na ci ab article di di di tuddee ko travail nee naa sax moom moom xamul xidma moom xamul baat bi jëf du ko mën a xam du mën xidma du ko mën a xam kon moom travail lay def waaye lu am solo daal leen kat mu di mu dafay jàppee ne liggéey may si na ca jaar ba àgg ci yàlla foofu xam nga day am paradoxe paradoxe bu ne bu ne travail rek li mu bëgg a wax doonu ko li mu bëgg a wax daa amul baatam ba tax ma ne bu ñu doon xool taarixu baat bi ku ci jëkk a wax jombul Abdoulaye Wade ci lay bokk 1957. xanaa benn benn majale présidence africaine benn magazine la bu doon génne France comme ku mel ne cent pour cent daana ci bind bu solo bu am solo ci la ko bindoon loolu kon lu am solo waaye foofu moom ci bindikati France yi la dégg naa ñu ne Cheikh Blay ji bindoon na ci xaw ma xaw ma lan ma dëbu sifa yi doon ci daal xam naa noonu xam naa loolu day mel ne xam naa utopia la lay doon waaye du xidma ko kon léegi taarix xidma ngo yaakaar naa kon ñu koy dégg danañ xam ne kon kat nii la demee de moom man de noonu la ko exposé ku ku ku am yeneen nag donné na ko indi ku xam leneen ku ci def leneen na ko indi man de lii laa ci xam te yaakaar naa pour yaa ngi de te te teg naa ko de moom balaa kenn indi leneen nag yaakaar naa dana xorom.